xarajtu yowma sabti saamina asara li xidmatil muxtaari fi sani safara xarajtu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata mustaqim sirata allazina an'amta alayhim xayri maxdubi alayhi wala dalin mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaaw loolu ñu ngi ñaanal sunu sëriñ sunu yaakaar tey at ëllëg muy sëriñ Mamadou Sougou euh, mu sëñ Ahmad Tass yi mu sëñ Jéeri Wadaan di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ko wér di ñaan suñu borom itam ñu euh, ngi defee nag émission bi fii ci kër sëriñ Mamadou Sougou mu sëñ Ahmad Tass yi mu sëñ Jéeri Wadaan ñi ko fay defee ngir wax li nga xam ne euh, mooy li jëm ci màggal gi nga xam ne sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul euh, moo ne woon kaay leen santale ma yàlla sunu boroom tey ñu dajee fii di ko ko defal euh, ku nekk xam ne ne bis bi bis la boo xam ne sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo ne woon kaay leen santal ma yàlla moo tax tey ñu dajee fii ñëpp ci sant suñu borom bu baax di ko santale suñu borom sëriñ Mame moom mi nag ànd na ko njabootam yëpp ànd ko taalibim yëpp ñu dajee fii nga xam ne muy waadaan ci ci marché Ocass nga xam ne sëriñ Touba Xaadimu Rasuul moo ko daggaloon suñuy maam sëriñ Bamba Sougou mi nga xam ne mooy taaw sëñ jiiri waadaan ak sëriñ Touba Sougou ak sëñ Ahmadou Tasrif ak soxna maam Joomi Sougou ak soxna mul ak soxna naar ñoom ñoo ñi xam ne ñoo bokk nday ñoo bokk baay kii moo jur sama yaay kii jur sama baay maam jombi sugu moo soxna faat aale mu jur soxna ju moo jur sëriñ maam sugu mu kon sama yooyu ñoo bokk ndey ak baay muy sëñ bamba ak sëñ ak sëñ ahmad tasrif ak soxna maam ñoo bokk baay kon xam ngeen fii ñu koy defee tey Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo ñu ko digaloon ñu ànd ko euh, njabootam ñu ñëw dëkk fii tey jii. Ah, di wax na màggal gi nag alhamdulilah rabbil alamin ndax màggal la goo xam ne ah, digg yàlla euh, yor yoor wi jàng nañ fi ay kaamil yu bare bare bare bari jàng fi ay xasaayit te incha allah su guddee war nañoo yëngal fii ci bunt bi loolu lépp rek ngir liggéeyal ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul gis ngeen ne berne yëpp ak teraange yëpp mat na ndax boobaa léegi daanaka na ñu ngi ci def ay xéewal booba at tey nit ñi noppalawul ndax amuñu lu sëriñ Touba ndax weeru safar teroo ba tey ñun ñëpp ñi ngi waajal màggal ci di ko bàyyi xel te nekk ci guddi nekk ci bëccëg dan man nga ne sax dëkk boo dem da ngay jàpp ne foofu la màggal gi ne te lépp Touba gi lañu la ñuy dajee si ndax lépp jëm sëriñ Touba rek moo ko waral moom li nga xam ne moo ne woon kaay leen santal ma yàlla suñu borom sëriñ Tuubaa moom mi nag mu ne nabaxtukum ala hakadin bada lii xabla arida muhabbada seexul xadim nee na man sëriñ Tuubaa lépp lu ma am si ab coono rek rek rek rek laa ko amee kon seexul xadim ku nekk xam na ne lu mu am ab coono moo ko ko may waaye na liggéeyal na rasulullahi ba yàlla fay ko lii tey moo waral njabootam gépp ñu si bari yonante bi sallallahu alayhi wasallam la leen tuddee way yonante bi way yéeme takkoot sunu borom nag waaye nag fenn fu ci ne saa su ne su ko suñu borom nattoo si nattu yi mu ànd ko ak ñoom waaye fu mu ne fu ne ma nga fa moom Seexul Xadim di fa liggéeyal sëriñ sunu borom Xaadimu Rasuul kooku xam nga ne moo yar sunu maam sëriñ Ahmadou Tasrif Sougou ndax sëñ Ahmadou Tasrif moom sëñ Tuubaa da koo yar sa benn bis mu def ci moom loo xam ne defu ko ci kenn kooku moo jur sëriñ Mamadou Sougou mu jur ma kon sëñ Tuubaa kenn la amuñ lu dul sëriñ Tuubaa yaakaaru ñu itam ku dul sëñ Tuubaa ndax tey bu nu amee mbécce wala ñu am jàmm si réew mi wala jàmm sax ci dëkk bi xam nga ne Seexul Xadiim rek moo waral lii lépp moo waral sëñ Tuubaa daa keroog ba natt yi jeexee suñ borom da koo laaj ne ko ndax ma jéggal la sa noon yi mu daan ne ko jéggalal ma ñépp mu yaa malikal mulki yaa man jàll an xawadi irham jami alwara yaa xaadiyat wadaha sëriñ Tuubaa nag nee na yow suñ boroom jéggalal ma sama noon yëpp nga yërëmal ma leen kon xam ngeen ne sëñ Tuubaa li mu daj ci sunu boroom si ab coono tey natt yooyu yi nga xam ne yàlla tegoon na ko ko lam sa daj gis ngeen ko dafa jëlaat lépp rek nangul dogal dellowaat ko ci sunu borom ba tey suñu borom fayee ko jëf ji moo tax képp koo xam ne itam yaa ngi ñëw Touba yaa ngi gis dëkk bi ni mel dëkk bi da dafa fees dell ndax kër goo ci dugg la fa dajee si aw nit danay yéemu ci sunu borom ndax da ngay xam ne Serigne Touba mii kat lam doon liggéeyal yàlla si ab coono boo xam ne ci métti woon na ci moom soo xoolee loolu si màggal gi da ngay xam ne liggéey suñu borom rek mooy lu kon ndaw ñi nga xam ne dañoo toll ak jamono joo xam ne dafaru ji métti na toll nañ ci jamono joo xam ne liggéeyal Serigne Touba itam jafe na lool waaye ci kaw nga nangu ko ci sa kon ndaw ñu ne ñëpp maasee xam ne Serigne Touba rek moo fi ne ndax suñu borom kat. la ko sëñ jéeri waaroon waxoon ne ko sëriñ jéeri nee na képp koo xam ne yaa ngi woote tariixa te jëloo li nga yor jox sëñ Tuubaa su ëllëgee suñu borom dina jël li nga doon woote soppi ko ay neen kon sëñ Tuubaa yàlla da koo jox àdduna waaye itam da koo jox alaaxira kon sëñ Tuubaa kenn la kon nag nan góor góorgóorluwaat bu baax si sunu pas-pas sunu diine ji sunu gëm sëriñ Tuubaa te xam ne itam loolu mooy li ñuy jariñ ñun waa kër sëñ yi nag kenn waruñoo gën a gëm sëñ Touba ndax sëriñ Jéeri doom ju góor ju mu am sëñ Touba la ko tuddee bu dee jigéen di itam soxna jaaratullaay kon xam nga ne a ah, war nañu góor góorgóorlu ci sëriñ Touba bu wér ndax sëñ tubaakat kat wàccu na ak ñun ñun ñii ñoo ci des kon nag nañ xam ne a ah, liggéey. ak jaamu yàlla ak gëm sëñ Tuubaa ak gëm alxuraan itam ak fonk xasidaa yi nga xam ne moom la ñu sëriñ Tuubaa booleel ñu di ko jàpp kon mbokku taalibe yi ak mbokku lislaam yëpp rek nanu xam ne màggal gi sëriñ Tuubaa da ko woote ngir du sant ko yàlla suñu borom kon nag ñu xam ne waaye mën a ne surtout yaa ngi Tuubaa tey jii ndax ku ne xam ne ne dëkk baa ngi fees tell waaye nag lépp sëriñ Touba la kon kër gu ci ne boo fa duggee mi ngi yëngu-yëngu yéeme mel noo xam ne da ngay yéemu ci sa borom ndax kon sëriñ Touba liggéey gi mu doon liggéeyal yàlla yàlla fay na ko ci loola kon sëriñ Touba moom it nañuy ñaan yàlla ci barkeem di ñaan suñu borom itam ñu kën koo gëm gën a xër ci moom gën koo euh, nangul li nga xam ne moo nekk ci moom muy Cheikh Ahmadou Khadim euh, Cheikh Mahamadou Fadal moom mi nga xam ne moo ne woon màggal gi ñu ko ñëpp di defee Touba alhamdulilah rabil alamin ñi ngi ko ciy sant ñu ngi ciy sant yàlla baax a baax ndax lii kat ñi ci ñi ciy bàyyi xel ne ko suñ sëriñ Fallou Mbacké waxee woon ba loola mën a am tey jii fii ba tey ñëpp mën a dajee tuubaa gi di fa mën a sante yàlla suñu boroom kon màggal gi giléem yi ak nag yi ak xar yi ak bëy yi ak yi lépp gis ngeen ko mi ngi fi ëpp na loxo ci bis bi kon sëñ Tuubaa lépp moom nu ko jaral ñun nag ay murit lan yoo xam ne sëñ Tuubaa rek lan gëm sëñ Tuubaa rek lan yaakaar sëñ Tuubaa lan wóolu te moom la ñu doylu tey moom lañu ñu doyloo kon xam naa ne kàddu yi kàddu yoon yoo xam ne dañ koo jëmaloon ci màggal gi rekk ubbi woon ko ci màggal gi waxtaan ci ci màggal gi ngir maanaam ñu xam ne màggal gi kat moom rek lañu am te màggal màggalu tuubaa damay faral di wax ne amuñu lenn lu ñu gën a yitte lu dul màggal Touba ñu màggal Touba rek la ñu ndax suñu waa ji kat Serigne Touba moom suñu borom da koo defal lu mu defalu kenn te moom lañ yaakaar tey te moom lañ yaakaar ëllëg ndax suñu maam yi fi newoon amuñu lu dul Serigne Touba suñu maam yu njëkk yi itam amuñu lu dul Serigne sëñ Tuubaa rek la nu am moo taxit sama waajur sëriñ Maamu nee na ala baxra baxrayn kuntu mu naakiran ala Moustapha Ahmadou Tarixu ñu ne ko loo waay mu ne ñu ngi si sëñ waaye ñu ngi si sëñ kon diggante sëñ jéeri ak sëñ benn la diggante sëñ jéeri ak sëñ kenn lañ duñu ñaar benn bopp lañ kon xam naa ne dañuy wàcce sunuy kàddu di ñaanal alxalifa Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ko wér ak njabootu Serigne Touba gépp ñu ñaanal seexi Serigne Touba yëpp bàyyiwuñu kenn te xam ne suñu kàddu fi lañ koy wa asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xarajtu yawma sabti saamina asara li xidmatil muxtaar fi